سمعت رسول الله طه المقدسا عن الند والأبطال أصلا مؤسسا رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا أنس في ذاك زمان وقالوا أن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 وتجنون ما أزني بكم ما أزني بالتقوى بالآخرة مؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا على رسول المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه نور المصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد والسعيد وعبد الرحمن بن غفر وابي عبيده بن جراح وحمزه والعباس وجعفر والعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التالي من الحسنى الى الدين اللهم لا اخوان عمرنا في عقولنا اللهم نمل في قلوبنا وقبورنا واشرح في صدورنا ويسر في امورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القران العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل مائلا مصدقا فينا اللهم ارزقنا تلاوته الم نحمد الذي يرضيك عنا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 التي فيها رد وإلا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها إلا أعنتنا على قضائها إلا أعنتنا على قضائها ويسر منك والعافية إنك على كل شيء قدير وبكتاب تجري لهذا الكلام الكرام اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قدرت به علينا من قضاء فجعل عاقبته رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا لعباده الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد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 يا ربنا قد أعواني حلولنا ودون كل ظالمي يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بالقهر من علينا جسرا يا ربنا أرشدنا بفرجي ونجنا من بيعته وحرجي صد علينا من حماية الأمنعي سؤالك من حمل يمنعي اللهم أرسلنا بعلمك الذي لا تنام وكفنا بكرمك الذي لا يرام واجعلنا بدوارك الذي لا يكفر ولا يضام اللهم إنا نذر بك من نور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفرنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم انك على بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبدنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا بجنة نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وقنا ما أمنا وما يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين man naa la te lépp rectifié ko ba mu des arab mu jàngal na aussi ne li gën a am solo ci yow ma arafa bi mooy xam fi ngay xam ne yàlla ni ñëpp benn ngeen équalité bii fee ci yow buur nga ministre nga député nga DG nga waaye tey yàlla ñëpp yéen a bokk benn kanam laay soo leen daal yéen a ci kanam yàlla dégg nga MM boobu nga waaye bokku toppal innaa akramakum inda Allaahi atqaakum ci xolum gën a ragal yàlla kooku man ta dem ah ak keneen ah innaa akramakum inda Allaahi atqaakum aussi daan nañ ba tey ci leçon bi mais yàlla dafa bëgg ñu àtte li feeñ maanaam ñu rafet njort bi ci biir ñu bàyyi ko yàlla maanaam ñoo si sonn islam bi parce que daf ne bàkkaar la indi ñu ne baal doon mislu ba pare mu ne wala te sa suuf bu leen yëlbat nit xoolal ma ñu fi ñu xoolal ma kan ci liggéeykaay bi xoolal ma nangam xoolal ma téléphone loolu islam interdit na seetal ma jiw toppal ma sama jabar toppal ma sama jëkkër xoolal ma li muy def génn ma ci yenn information bokkut ci bële yi nga am na bëgg na parce que fitna rek léegi ah jàng nañ tey ne doomu aadama mën naa mën naa def dara démb kay tuub nga jël bàkkaar boobu bu ko jëfandikoo tey fekk ñoom tuub la ba man tàmbali baaxul ko wax nii. jàng nañ ci leçon boo xam ne tey leçon bu jar bàyyi xel la parce que li may wax ñun ci bàyyi ci kaw taxaw na ci défendre ay nit ñoo xam ne leer na ñëpp xam nañ ni ñuy def ay nit ñu baax waaye daf leen défendre ci mbaaxam ak ci njëkkoon saa ñëw. mais nekkul ne affaire bi baaxul rek dañ koy seet ñaari oto ñoo ñaata oto ñoo pan ñu réparé leen ñu baax ñaata oto ñoo pan moteur ñu teg leen moteur ñu daw ah ñaata oto ñoo pan ñu réparé leen ñu baax islam ñu ñëw kon di jàngee ci dëkk si mooy lan mooy ne man satara musliman satara Allah ñun islam ne la suturaan suturaan da leen ngeen sulam man satara musliman satara Allah ku suturaan nit yàlla suturaan ba léegi verset bi ngay jàngal ne la bu ñu yaakaar mukk mukk mukk ne li ci nit ci yow rek parce que yàlla dafa wax yonent bi salaay salaam ne ko gars yi nga xam ne ñu ngi ci prison bi ñu ñu ne ci prison bi kenn ku ne li nga bëgg yëpp ne mooy jël waaye wax leen ne in ya'lam billaahu fii quluubikum xayran yu'tikum xayran bu yàlla xamee ne bu ngeen def baax ñu génne bi def asalaam waxal ñoom nga xam ne jàpp nañ leen tey ñu doon jàkkaarloo yàlla bu nekk ay prisonnier yàlla nee na in ya'lamu llaahu fii quluubikum xayran yu'tikum xayran yàlla bu xamoon ne seen xol yi lu baax moo ci dem mu joxe mu joxe lu baax moo tax araab ne la ak nii yëpp alayha ma dara la amal nit ki doomu aadama ay jëfam yëpp ñu ngi aju ci yéene bi rek boo yéene lu baax yàlla jox lu baax donte sax yéene bi borom waaye nag boo yéene nit ñi sabaat jëm yàlla ko jox accident jiw bi ñëw nii yàlla yàq domination bi yàlla nañ ko dàq jiw bi ñu ko jox luy taw ko di ko créer ay mbir di ko créer ay sos yoo xam ne dara leeru na ci bu ne boobaa ci aaral la yow lu mel noonu rek la yàlla naa yaram bi yàlla nga raxas suñu xol ba nit ñi nag ci lu baax bi yéene leen yàlla ñu yàlla def loo xam ne ah, dañuy rafetal si islam ci bàyyi lépp loo xam ne suñu yoon nekku ci yàlla yàlla ñu leen boppam yàlla ne wax nañ ne parti bi jóg waaye ñu nekk di xam ko yàlla ñu yàlla barkeel yàlla yàlla barkeel suñuy liggéey yàlla yàlla barke suñu njàngin yàlla yàlla barke suñu njaboot yàlla yàlla barke suñu am-am yàlla barke yàlla barke képp koo xam ne nii jaar na ci ñun di jaay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla aar boppam yàlla yàlla aar Sénégal yàlla yàlla aar Sénégal yàlla yàlla defal suñu koom-koom yàlla yàlla defal suñu am-am yàlla yàlla defal suñu santé yàlla yàlla defal suñu sécurité loolu dem manqué yàlla ñu ci jàmm yàlla ñu fekk jàmm yàlla ñu ñëw ci jàmm yàlla yàlla doon sëñ ak di jaay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun fi dunya wa salaamun fil aaxirati wa salaamun fi al-mursalin wa salaamun ala al-mursalin